Kamou. oui. l'homme fidèle de Youssou Ndour. mais Zey. Zey kay. mais Kara. daf nay sax. mais l'homme fidèle de Youssou mais fan lañ jëm ni kamu ci kaw ah, mais li nak doyna war san masha Allah Viviane trophée bi Youssou Ndour la koy ñëk indi bakki Thank you. asalaamaaleykum. ma père. dimanche la père. dimanche la. Oh. dimanche la. macha allah. mais ah waaw loolu ñu bàyyi nga. ñoom balaa yéegi ci Youssou. mais Queen. mais mais nga def kii bi. mais. loolu la ñuy nga wax. ah saa ngi si biir ah. ñu yegg miin na ko. miin nga ko miin nga yi. waaw complètement. Queen bi. Jej, Bravo, bravo. Toutes mes félicitations. Wow, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo.

Yes. MashaAllah. Oh, yes. MashaAllah. Oh! MashaAllah. MashaAllah, Mashallah. Toutes mes félicitations. Ah, ah, euh, je, euh, je pense que euh, l'humain va faire mon

qui voit les wax avant affaire je suis pas en direct avec vous mhm. je pense que vous avez gagné parce que tu as beaucoup travaillé ces dernières années beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup je l'ai vu je l'ai vécu euh, ça m'a plongé aussi c'est beaucoup d'émotions je me souviens en 1994,

cër boobu moo la war tey mhm. ndax euh, ci wàllu musique war na la waaye ci fal wàllu famille war na la yes ma gis yëpp parcours bi gis yëpp moo tax ma xalaataat loolu mhm. donc je pense que c'est un début mhm. encore tu jeune encore jeune ta la musique euh, bokkul ak yeneen yi déedéet nous, on a fait 5 ans. Nous, on est là. La musique doit pour le mm. Numéro mm. Moi, ce n'est pas une question d'âge. Mm. Il a encore jeune. Il Je sais que de plus en plus, tu t'entoures. am système mais système bi ngay doxalee baax na nit ñi encadré ñu ngi def li pour que boo taxawee rek li nga war a jox adduna bi mu nekk lu mucc ayib j'ai suivi la performance je suis toutes les choses comme ça et je suis fier de toi te su ma la ko waxee war nga ko gëm je suis fier de toi et euh, je me dis que ne euh, degré rek degré. dëgg ndax ñun euh, super étoile euh, boo fa jaaree école comme d'autres sommités aussi mm-hmm. école ouais ndax li nga xam école nga nekk mm-hmm. loolu moo donc euh, c'est une satisfaction boo nous ne mesurer mais c'est un début de reconnaissance mm-hmm. man sais naa li ci kanam

gën leen ko jàppale mm-hmm. ndax occasion yu mel nii ay vote la mm-hmm. xam nga nit koo xamee ni que ngi nekk ci beneen dëkk ñu nominé Viviane fii mu jóge Sénégal wala keneen kooku ñu nominé benn artiste bu nekk dëkkam ku muy woteel mm-hmm. artiste dëkkam lay woteel donc melomaan tamit gën leen jàppale artiste yi bu ñu amee reconnaissance bo xam nit ñi def nañ ko ci ñom ba nominer leen mm. voter leen Sénégal kenn dàq leen voter mm-hmm. pour sen artiste pour jàppale té loolu moy am solo et je vous félicite les mélomanes de la musique sénégalaise parce que joué ngeen ben rôle bu am importance ci lii joué ngeen man dama dama dem ba ci biir laajal fii dama ko doon poser ay questions ñu ko wax mm. jox leen ma est-ce que nan la ko nit ñi jàppalee fii parce que dama ko soxla di xam mm-hmm mais gàcce ngaalaama def nañu li li ñu waroon def jàppale nañ leen ma leen di ñaax nag pour que képp ko xamé nominé ñu ko ci dara ngeen gën ko jàppale waaw ndax dompat ci sa dompat hmm. je pense que c'est très important yàlla na la ji yàlla na la ji ah euh, la visibilité maintenant elle est beaucoup plus grande ouais ça dañ lay xaar donc euh, défaut erreur ça mais tu n'as pas droit à l'erreur mm-hmm. c'est ça

dafa am baat bu ñu su wax super étoile yu suñu super étoile école académie la et jërëjëf moom bi mu xamee ni ci école la ñëw et dafa am li jaasa lu mu fa war a jële moom mooy lan mooy jàng métier bi ba mu mokk baatam jox ko li moom moo waral bi mais jox ko na ci baatu ci tànku

Mm-hmm. et eh, li tax ñu lay ñaanal moom mooy ba léegi wàccoo gaal bi te yàlla boo mm-hmm. ko wàccoo mm-hmm. parce que jaar ci école yu suñu ak super ak et mu wax benn baat daal fa nga jëlee li léegi dina nag kee ah moom mooy diw dam daanaan ñu fa nekkoon bari nañu Davido jël bu góor ñi nga jël bu jigéen ñi cuwee ni ah, God bless you congratulation mais ah. waa ji sa rakk ji moom tamit gàcc nga la mm-hmm. mu màkkee ah vraiment jàpp na ci liggéeyu Viviane bu baax a baax a moom tamit jaar ci école Youssou Ndour ah ah ah waaw kon nag daal bi God bless you congratulations ah lii moom moom sama mm-hmm. moom mi nga xam ne et puis bii am fukki at ak topp ma di way li ma ko njëkk yéene moom ñu ñëw ci kanam wante ah wax ak sama papa ñetti fan laa wax papaam bi waxtaan ci suba si la accident bi papaam papaam gaañ bi mu ko ñu ah xale bu ma ni benn message yéen ngeen doon nekk ak Michael Souma. mooy xale bi ñu ko tëral yàlla na ko yëkkati. moom mu dégg ko ci rajo bu nekk principal. tëb mu ñëw bu ñu Youssou moom wax yàlla naa ko wax naa wax. ñu dem ba Youssou toog na ma nga def bii ci mu ñëw ne kii dama ko jël. ñu ñëwee boobu di def woomat bi y avait Habib Faye y avait Jean Philippe. ñu essayé ko ci fan si morceau sama nit boobu bi ma toogee ci studio bi a bu may téye maa ngi lox lokaakan sa taxaw parce que y ele não fique fille qui de la France que sou a dit que kii gëm naa ne dina def liggéey biñ um novo Youssou Viviane lii ngay woy mu def couplet bi Jean-Philippe dafa jóg du mis di seen na mais kenn wu de Mbour xam nga mu def affaire bi ñu topp ci bu nekk fierté boo xam ni muy jàmbaar boo xam ni jàmbaar bu mag la. Mm-hmm. li ma gën a neex ci affaire bi mooy dañuy dugg ci avion bi moom ci boppam. Mm-hmm. mu ne ma balaa may dem fenn. Mm-hmm. dama ko yóbbu yuusu. sama xol dafa set buy. parce que loolu mooy coloré parce lépp fii la commencé. bien sûr xam nga tu peux faire la musique faire beaucoup de choses. comme ñun mais ñun comme ñoo xam dañoo am école yu suñu. Mm-hmm. tey jii man fu ma dem ci àdduna bi yëpp. yes. ñëwuma ci mm-hmm. ci li ñuy def ci entertainment bi. yes su ñu dem bay indi fi ñëpp parce que moo ñu jàngal jom bi fulla bi fayda bi. Mm-hmm. ne li ñu defee donc ba nga xam ni fu ñu dem rek dañuy bokk fu ñu dem dinañ nekk ci ñuy gën a xam nga ñu encadré ko parce que daf ko mérité mm-hmm. parce que ñu bëri xamuñu ne kii jàmbaar la mm-hmm. jàmbaar la boo xam ni mm-hmm. te gor la gor la boo xam ni doo ko mës gis mu complain ci dara di koy góor la yor dégluwul deful dara mi ngi liggéey donc ñu ànd ak moom mu jël tey jii ndam ji seen fierté la man aussi sama fierté la boo xam ni parce que loolu rek laa doon drain di ko xalaat nii ñoo moo dàq encore une fois ñu ngi leen gërëm di gërëm Youssou Ba di gërëm Mbaye parce que après ah. laa ne Mbaye yow mhm. danga fekkee lépp mhm, waaw te doon accompagné ko aussi mhm. te Youssou li may toog yëpp mi ngi may texte mais on va vérifier lii ak lii ak lii parce que elle va gagner boobu ñu jaaxle nañu ba kii dem di waaj a sumeeku man dama defoon dafa def athlétisme non non dafa doon sumeeku dafa doon découragé découragé wala dem na buy sumeeku parce que nee naa ko ba ne ko fii kategori bidang berapa? Apa kan? Wih, turun dem, wow. olah. Apa ini kau? Olah, kecap mah, kom sama lamb di pas mau lamb di muy kecap mana? di mana kecap dafa ne ma bang il faut mu face to face Mana ma kecap xaaral tuuti bi ñu annoncé affaire bi rek kii kii Nigéria mais gis nga maa ngi toog j'avais. kii euh, hmm? sama nee. mais bi ñu nee Viviane. dama dox dox ah moom bi ma doxee yee moom ci télé bi ci gannaaw lay xoolee mais mu ne Mbacke ak tànkam bi mënul gaawee nii dox. yaa am na am na lu ko bi mu gisee Abdou rek hmm. beneen boy bi rek. Ah, ca la daw na. Oh, def cent mètres. Oh, bi. Ah,